maaleykum wa rahmatulah yéen mbokk internet yi yéen ñi xam ne yéen ñuy suivre ci Touba Sekhawgui TV ñu ngi leen di siyaarewaat bu baax jiite ci siyaar bi Sëñ di ko ñaan mu yàgg fi lool ci di siyaarewaat xalifa général di Baye Fall sëñ Amdi Modou di ko ñaanal moom itam mu yàgg fi lool ci ànd ak di am di leen lu baax ci topp ngeen ñuy topp tey ji ñëw fii ci dëkk bi di Toubé Bane war a waxtaan ci histoire dëkk bi war waxtaan diggante Toubé ak waa kër Maam Cheikh Ibrahima ñu war cee eh, dalal suñu maam joo xam ne nii moom moo fi toogal suñ am di Modou na fii ci dëkk bi muy maam moodu Bane kon dañ koy jox mu nuyoo bu ko defee ñu commencé waxtaan wi mu waxtaanal ñu ci du histoire dëkk bi ak diggante dëkk bi ak maam Cheikh maam Modou maa ngi lay nuyu maa ngi lay baax a baax. ñun di la fay. asobillahi mina seytaan yàlla màgg bi yoon nañ ko doon Sëñ Tuubaa kàttanu maam Cheikh Ibra Fall barke Cheikh Mountakha Mbacké barke ni mu du benn waaw sawaay fi ngeen ñëw tey daa doon benn dëkk boo xam ne bii dafa benn doon benn tànk ci kër Cheikh Ibra Fall léegi mu dafa benn tànk ci kër Cheikh fa mu tàmbali sax dina gudd lool xanaa ñu laal ci tuuti. ndax dëkk bi ñeenti góor a ko sënc yu bokk ndey ak baay seen ak njaboot rek a fi des tey di tuube ba ci yow miy toog ñeenti góor ñooñu Ousmane Baan moo ci maboon Baye Ablaye Baan topp sama baay Baabukar Baan topp sama maam Moussa Baan mi jur sama maam topp ñeenti góor yooyu ñoo sent fii ngeen yow tey muy tuube digganteem ak mbuween gi ngeen jaar kilomètre la waaye ci yooyu jamono seen maam Mor moo fi jógoon dem Thiès Mor Faye mi nga xam ne mook seen yaay ñoo bokk ndey ak baay moo fi jóge dem Thiès jàng fa alxuraan bi wàcc dégg mbooru maam Sew Rafal ndànd mu ne moom sëriñ bi mu dégg fii dina ko seeti ba mu demee ndaan fekk ko maam Cheikh a ah, la jàpp ñëpp ci maam Cheikh Rafaat jàpp moom maam Mor moomee mu ngi njaareem gii marché kàdd yoon boobu jaar buntu kër ci jàkk ci jumaa ji jëm dindi boo génnee boo génnee jumaay ji armil boo séen ci sow maam Mor ngi foofu te atam piste ba lañ ko fa denc. ba mu demee fekk fa maam Cheikh jóge fa ñëw Thiès. mu ne ko man de dama amoon jarbaat yu ma bàyyi woon bëgg leen a seeti ba mu ñëwee mbooyeen dafa fekk ñoom sama bàyyi seen waajur gaañu ñu doon boroom kër yu ndaw waaye sënc nañ seen kër bañ sëñcee kër ga mu ñëw fekk sama bàyyi donc ci kër gi sa maam Moussa ak sama bàyyi Ablaye dem wëggi ay nag fekk sama bàyyi ci kër gi mu nuyoog moom ne waa wolof bi boo foo bàyyee ko ndax xamatu ko ndax melaw yi wolof bi bo waye ko mo ne man de may bo ba njiitali la tudd ba muy dem waaye maam mam maam maam moor maam Cheikh la ko suppi mor fay ba mu ñëwee mo ne ko waw njiitali no mel lu tax a mo ne ko man de damaa jébbalu mo ne ko lu jébbal mo ne ko da ngay joxe sa bop ni jox la sa bop adina ka àllaaxira loo ma digal ma dem loo ma tere bu bàyyi mu daal di ko tàllal loxoom booba di boo koon la tudd mu wat am ne tudd Baabukar sama baay ma hmm? déedéet déggoon ni ma la ko waxee suma baay la dong la kër gi daa fekk sama Moussa ak Baablaay bi mu toog ci ginnaawam uggi ay nag bi ko ni jaam waxee noonu mu daal di summe ku mu wat comme neel tudde ko Baabukar baat ñu toog ne kum ñoom ñaar kii ba ñu dem ñu ngi fi bàyyi Dibokor fekkam Baabukar toog maam war toog mu toog ñu ne ko waaw yow Dibokor noo mel nii mag yeeg ko wax ba moom it booba saafaale la tudd ba ko demee ba ko demee mu ne ko yow yaa ñàkk fayda kii xam ne xaw ma daay yàqu joon xaw ma lu mu doon dikk doon wolof ñëw naa la dangaa jiblu na luy njibal waaye xam nga nit ak mbokkam mooy magam mu topp ci ginnaaw ñu bokk ndey ak baay maam ñii topp doon seen rak dem fii wéréw ñëw fi mooy ginnaaw doom bi dugal na la li ci lu may nekk naa def ne yow daal di loxoom mu ñaanal ko tudd Ablaye Baan Baabukar am na Ablaye am na maanaa maam mu ngi tuddoon defe naa cuusoo cuusoo moom it mu ne awma lu di yéen def ngeen ni dof ngeen lu ma ciy nekk mhm. jëb lu mu tudde Moussa mhm. Babacar am na Ablaye am Moussa am mhm. nii la deme seenu njébal lool la ba mu ko demee na xajatuñu fee ndax li ñu def kenn mësu koo dégg moo tax may la dina gudd waaye fu mu waree yem rek nu nu bàyyi foofu ndax histoire day gudd ba mu ko defee xajatuñu fa ak seeni bokk ñu ne kii moom seen nijaay ñëw na ba toroxal na leen ana luy njébbal mu metti ci ñoom lool ñu meeb seen i gent baa ngi nii lii ñe tax waaye gent bi mooy guy yi ñëw foofu samp bi tuube gi nag ku la ne ab sëriñ a ko tudde tuube mbaa kenn déedéet seen néeg yooyu ñu senc te xamuñu leen fi ku gis ne ginnaaw nii ñan la ñu ne ñi di Touba ko nii fi taxu lii kat mooy dëkk bi ñu naan tuube séréer si naa ruuru ruuruube séréer si naa ruuruube wala wi naa waa tuube mooy tuube gii tey ngeen ñëw la ko Seex Ibra Faal amee fii tey waaw ba mu ko amee it sama bàyyi doon jën seen alal di ko Seex Ibra Faal fii ci njaareem doog naa boobu sax. gis nga sëñ Balla Baan mii. ba mu ko defee te maam Mor ñëw bañ def loolu. la ko sama baay jox ba sëñ Balla mii mu yóbbu ko ndaan te maam Cheikh. ñu nekk maam Cheikh nañ ne ba muy nekk Thiès. séréer bu ñu indi te mënuñoo wax ak moom maam Cheikh maam Cheikh eh, dem leen nit ku Mor Fay sama séréer boobu yotteel leen ma ku muy waxtaan ak moom. moom lay booloot di muy waxtaan ak moom di ko digal bi la mu la mu war a xam mu xam ko. noonu la fa nekkoon Thiès ñu nekk Thiès bu ñëw njaarim sëñ Balla mi soog a ñibbisiwaat fii Tuubé gii ba mu ñibbisee yàlla dogal te dogal ba ba fi sama bàyyi jógee nag moo fi ne yarnu yarnu lu nag kër Cheikh Rafal xamuñu lu loolu ah man mii nga xam ne day dañoo muñ ne doomam laa googu wet dong laa xam kon loolu mooy Tuubé gii ngeen ñëw tey njaboot goog mag njaboot ak ñeenti góor yooyee nag tey ci gàtta rek moo fi ne ku fa du dëb sit te ab moom mi tey ab sit ab sit la ndax yaayam tey ñeenti góor ñoo ñe ma la wax maamam tey moo di sunu xalifa nun ñëpp la muy doon doon jigéen sama faatu li muy màggat màggat tey ñeent ñoo ne tey moo sunu xalifa loolu la yàlla dogal man mii sëñ Moussa moome mooy saa mag waaye fii fi tuube nag walla gi nga xam ne la jógoon ci sëñ Balla jaat sama maam Abdou tey wax dëgg yàlla mën naa ne man mii la fa yàlla bàyyi ma téye ko ni micro bii loolu it maanaa sëñ Cheikh Modou Mbend mu nga ne mooy taab sëñ Modou Fall Mbend Cheikh Modou Mbend mooy kee mooy taab sëñ Modou Mbend Fall sëriñ Talla Top sëñ Amdi Modou Mbend mi tey toog fi moom bay sëñ Modou Fall mbend lu yàgg toog fi bay Cheikh Rafaal ci kaw suuf tey yàlla na ko fi yàlla yàggal ak Cheikh Mountakha Mbacké sëriñam bi yàlla nañ fi yàgg te wér xanaa xanaa bi ñuy dellusiwaat ci maanaam eh, comme bi ngay bi ngay dellusiwaat ci histoire dëkk bi hmm. ak itam diggante maam diggante maam Cheikh ak eh, dëkk bi te itam si diggante sañu am bi bi mu toogee xaj baak léegi hmm. loolu ci mën a waxtaanal loo xam ne nii maanaam danañ ci mën a am ak njëriñ njëriñ danañ ci parce que da am seen ñaar yàgg na ndax depuis mu nekkee xalifa sañ Modou Mbène ba léegi hmm. yàgg na ngi ci wetam ci lu jiitu sax yaa ngi euh, tubi ma mu ngi ci waa kër si Modou Mbène ci dalee ci sëriñ Cheikh waaw dalee sëriñ Cheikh ba léegi bi ci sëriñ Talla waaw léegi bi ci moom mii bi ci moom mi waaw léegi nag suñu am di nag dañ bëgg nga waxtaan ne jëkkata akata akata su ñam de liñ ci waxtaane moom lu yomb la ndax loolu la du gën a xam lii nu wax ndax dina koo fekk fekk moom mu ëpp dañ ma ne su ñam di moom seen nga sunu photo ba nee photo bii defe naa boobu firnde la ci ndogu yi lañ ko def booba noo nga tuubaa tey waaye ndogum yi moom li ma ko wax kera rek damaa dem ca kër ga sëñ Cheikh doomam woma ne ma sax sa sëriñ bi dee ngi ci mango gi mango googee ca bitti. ma ne kon de maa ngi ñëw ba ma fa jógee laa wëññeekuwaat ñëw. ñëw lal biñ ko génneel ma def ci sama ñaari conc nii. ba man maa dégg ma ne ko ah Fall. man de damaa demoon kër ga waaye sëñ Cheikh dem ma ne génn nga ma ne naa dellusiwaat. Mm. waaye kat li ma indi. ñaari kàddu dong leen déggagun Fall. mbosu ko yaam ak yàlla na fi yàgg waaye yàggi kat faal moo nu ñor yàlla na fi yàgg kat na fi yàgg kat faal ndax sa yàgg gi lépp loo bugg ci nun boo ko ñaanee sëñ Modou Mbène mu defal nu ko dafa ree <laughs> waxoon mun toogee moom mbaa mu xam ne may faw mu ree ba keroog biñ ko siyaaree ci mujj njaareem sëñ bi moom ba mu toogee magam yi ne fi it mos na xatal benn magam serigne Cheikh ak Cheikh seigne Talla tok fo xamne bi seigne Talla du am di de len di nuyu la war ci ñom mu def dem tok place am ku ko wax ne ko waxo lu am ku la ne sëñ am di Moodu Mbend bi magam yi di ne ak rakam sona na talib ken ci kër gi ne ko amut foto seigne Balla bi mala won ni mo top mo top ci ab taawam mo ne ci ab taawam moom des bi ak man tey ci liggéey bi di sama jawriin moo tax bi ngeen ñëwee ma yónnee ko ndax fii man ne tey ni ma leen ko waxee ba mu ñëwut mook awa mi ma topp ci ginnaam ñoo maase net di nag defe naa net di fi ki la mag fa la dàq ndax moom baayam la di doomi maamam mm-hmm. waaye lu ma ci bàyyi xam na ko waaye dëkk bi ngeen ñëw tey moom noonu ma leen wax moom ak ku leen mën wax ëllëg te jaaru fi waxu la mu demee nag te loo maamam yii la woon ñeenti góor la ñoon ñu bokk ndey ak baay ak ñetti jigéen xam nga jigéen moom yàllaa ko def rek mu am lépp lépp jaar ci moom waaye nag daam nu yàlla def ci ñoom waaye ñeenti góor ñi moom sañ nañ koo wax ndax ñeenti góor ñooñ ñoo tax fii taxaw jigéen ña bañ fi nekk it dañ leen a jox ñeneen ñu dem feneen waaye góor ñi matuñu way jóg loolee ñu fa doon doxal fii ci tuuba ca maam yi nag bi fi mu ne tey ginnaaw yàlla ci maam maak moom mii la nekk ndax julli suuma korite fekk na ma ne ko jàkka ji yi ngeen di romb na ngeen jël ko na ngeen ko xadd jàkka jiit noonu danoo def ci jëfi kilifa ya dong bismillaahi rahmaani te sama xam-xam tàmbalee mooy maam Ousmane Baan mm-hmm. mooy armel bii doomam ak ñaari soxnaam ñoo fi ne te maam Ablaye Bane maam Mbaye ñoo fa nekk ak seen ndey Tening Yaasin maanaam ñi Tening Yaasin kii daal kenn dong la ñu suulut ci armel yi muy sama maam Awa waaye ñi ci ñi bokkon Tening Yaasin ñëpp ñu ngi ci armel yi ak seen ak taalibe loolu mooy dëkk bii maam Mbay mu ngi jëkkoon a dëkk ci guy yi foofu la lakkoon dëkk bi gis nga guy see kat dafa newoon ak ak Dakar moom la penc woon defoon fii ndeyam ak ak ak ak ak ak maamam magam buntu këram jàlloog ñoom moo doon armeel yee fa moom bi mu wàccee mooy armel bale fa ginnaaw se diggante sexaw ga ak guy ga waaw foofa la nekk mook mook ndey Moustapha loolu mooy dëkk fii nag man lima ma fi moon a wax ba ñu fiy dëkk dëkku tuddewuñu woon ko tuube mboltooñ lañ ko tudde woon ba ba seen nijaay ñëwee te ñu jéblu la sunu waa dëkk bee boo leen ne buñ la doon tey meebal ngu ne si jox ma nga ne su ma la ko naree jox yal naa fanaan ni dëkkab tuube ya tuubeen ña moo indi turu tuube waaye tudd doon tuube kon loolu ci sama xam-xam foofu la tàmbalee sama baay doonoon ba mu tollo ci juróom-ñaari atam kuñu fi ginaar gu fi japp ku ko japp te du sama bay, doo yendu ci jam fo dug mu genn la xex ak yow bañu jeblo ñu ne buñu ko yoré duñ ko yaat jox ko maam Cheikh baram daan maam Cheikh yu jele ko yobbu ko kees ba mu demee ba maam Cheikh wacce ko mu ñew fi xeebati dëkk bi dem di cial bi di liggéeyal bayam dem na fi Touba Fall ndax fa la sama mag judo, atam maam Cheikh wàcceb liggéey sama baay tu ngénte ko tudde ko maam Saliou Sira sama maam xëyee fii dem ne ko bala dangaa dégg naa da nga am ngénte mu ne ko waaw mu ne ko noo ko tudde mu ne Baay Saliou mu ne ko yow nga liggéeyal Cheikh Ibra ba wàccab liggéey ba mu wàccab liggéey nga am ab di ko tudde Saliou Sira Cheikh Ibra ngi noonu muy sama mag ji wàccab liggéey kon loolu mën naa ko cee mosal ba mu fa jógee it gent booba ba mu tase booba sax it lu mu fa liggéey ci gerte bu ñëwee Bambey bu ko jaayee ñëw jox sama bay bo sama mam bong bi ne ko bu nga jiko sama maam dem fayeeku jiko lola doyatu ko ñu demat Touba Fall man mi Touba Fall la gane aduna ca bu ba seigne mustapha Fall ñaan na ci sama bop bi la sama yaay wax loolu mën na ko ci sànni way dekk bi kat bu jara fonk la ndax bañuy soow soowal suuf seigne mustapha Fall dafa ñew ne kar yaak Ousmane na ngeen suuf diggante feeg naanu bii ñu suul ci te ci jumaa ji la leen noonu lu ngeen fi amoon lu tolloog derab xarit na leen doy dinaa leen fi fekk ak lu ma leen fi war a fekke kon loolu moo indi lii de kon lu fi ne sëñ Moustapha Fall a ko def sëñ Moustapha Fall moom moo taxoon maam Baye lakk dëkk bi ba muy ñëw te yëgluwut maam Baye dafa fab taalu gi ci taa ci sàkkat yi ku ñëw bëgg a fay mu ne bu leen fay ba mu sooyee ba ñu mbaaral ko mu ne sëñ Moustapha Fall ne ko Babacar loo jubloo ci lii mu ne ko ni ma bone ak ni nga baaxee damaa bëggoon sooy ñëw yëgle lu fi baaxut ma nëb ko doo sa bët bañ cee tege loolu kon lolo taxoon mu ne leen kat lu ngeen fi am lu toll ni dërab xar na leen doy dinaa leen fi fekk ak lu ma leen fi war a fekkee kon armel yi kat lu ci waay def doo ko rëccu doo ko rëccu de ndax ñu baax képp fee fi ne dëkk bii nag am na ku ku paa bu fi newoon bu ci amoon xam-xam toog nañu fii bu nu gonal mu ne Ousmane di wax maami maami kee Baye Ousmane te naanu bii de li ma fi gis muy weex walaay di ngeen ko mos a gis su ma fi fekku di di ngeen ko gis kon looloo nu indi ci teen bii nu wër ko ko kooka moom ku amoon xam-xam la te sëñ Moustapha Fall li loolu lépp sëñ Moustapha Fall ko fi def la mu noon lu lu tolloog deru xar bu ngeen ko fi amee na leen doy dinaa leen fi fekk ak lu mu war a doon mooy lii nag moo indi lii kon nañ nu fonkal jërë ngeen jëf jërë ngeen mooy suñu mag mooy taw mooy topp ci taw bi sëñ Balla Baan ñu mm, armel yi li mu ci doon kii rek laay jokka leeral maanaam armel yi moom ñor nañu amoon nañu pos posa miire ko waaye doole ji moo fi nekkut képp ku ñuy jàppale daal ci dëkk bi armel yi moom ci lay bokk lu ñu ñor la lu ñu joxoon tey dey nu ñu di ko def ci dëkk bi tey ci armel yi lañ koy déparé bu ñu sañoon daal ngeen jàllaleel ñu ko ci képp koo xam ne am na pos-posab maanaam defal yàlla te def rek te yàlla tax mu jàppale ñu ci ndax ñu baax rek ñi nga xam ne ñoo sosoon dëkk ba fële bu ñu jógee fa dëkk bi mënatu ko ñu toxal ko fii maanaam ñoom rek a fi tëdd ay kilifa rek moo ñoo fi tëdd moo tax armée li ñor nañu lool lool lool waaw dëkk bi nag moom ni ñu leen ko waxee rek noonu la demee bi dëkku famille la dëkku baan baan la euh, euh, loolu rek ñun moom dañoo am doole doole jën ji waaye kon bu ñu miir nañ ko bu yàgg waaw. courant ndox mi moom am na am na macha allah euh, waaye courant bi moom amagul te te maanaam lu fi war am la nag ndax courant bi ostation bi xam naa da ngeen ko doon mën a jot waaye mu ngi nii jege tuut ci biir dëkk bi la jaar ci biir dëkk bi la xuus jàll te dëkk ba mu alimenté dëkk bi mu jaara ko fuuf te dañ ko fee jaarale jàll mu jàll. Euh, looloo tam lu ñu ñor la bu ñu sañoonoo tam bu ñu ci mënee jàppale bu baax a baax ñu jàppale ñu ci ndax courant bu toll ni otation bu jaar ci biirab dëkk mu ne su ko faa wàccee mu jaar dem alimenté dëkk boo xam ne ñeenti kër la xaw ma ñetti kër loolu maanaam xaw ma daal nu mu demee noonu waaye loolu foogoon naa ne warta mën a nekk te ñaari dëkk yi mu jaar yëpp dëkk yu mag la muy njaakaan ak suñ dëkk bii euh, dëkk yu mag la euh, kon daal loolu daal lañu am loo xam ne ñun moom suñu mébét la te bëgg nañ ko ñu ci jàppale bu baax waaw dëkk bi nag dëkkab maam Cheikh Rafal la mm-hmm. dëkkab sëñ Touba la dëkkab maam Cheikh Rafal mm-hmm. bu ñu sañoon daal lépp lu fi war a am daal dinañ ko am doole nag amu fi su fi amoon du ñu du ñu du ñu tàllal kenn loxo ñun ñoo koy defal suñu bopp mm-hmm.